bokk ñuy teewlu ci Sénégal 7 kon ñu ngi fii tey ci buntu palais de justice bu Dakar tey lu fay xew nag ñu xam ne mooy euh, confrontation ci kanamu doyen des juges entre Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye Adji Sarr mi nga xam ne ni mooy euh, tuumaal Ousmane Sonko ne dafa yegg ci ko menacé ko de mort kon tey mu war a jàkkaarlook euh, Ndeye Khady Ndiaye di patronu suite beauté mu ngi ci biir Adji Sarr yegg si na fi ay booru 11h am benn benn de amoon na benn manifestation à sa faveur bi nga xam ne ni euh, improvisé woon nañ ko fii ci wetu tribunal bi mu ñëw saafoonteek ay ay ñoñam ànd ak avocat ak sécurité am daal di dugg ci biir ay booru 11h gisuñu nag Ndeye Khady Ndiaye waaye lu ñu seetlu si ci buntu tribunal bi mooy euh, ñaari mobilisation mooy mobilisation du côté du camp de Adji Sarr ak du côté du camp de Ousmane Sonko mu am fi aussi ay jàmmaarloog ay xuloo kii weccante kaddu yi nga xam ne ni ay kaddu ñagas la mais luñ ci mënta jàpp ci biir doyen des juges mu ngi nekk di déglu en même temps Adji Sarr ak patron Sweet Beauté di Ndeye Khady nañu jàppale xale bi daal loolu laa leen wax jàppale doomu jàmbur ji ku mu doonoon sa doom doo ko seetaan ku Adji Sarr doonoon sa doom doo ko seetaan. waaw réew mi nag dañuy wax ne nañu am pitié on s'apitoie sur le des uns et des autres ana pitié bi ana empathie bi ku mu doom doo doxale nii dañuy wax rek dañuy wax rek nañu wax parce que ñamu fëgg seen kër nañ ko jàppale bari nañu dañoo daw nit ñi nag dañuy ñëw di woote yërmande di woote diine gi mais bu yërmande dawal ko jotee kenn du taxaw ñoom ñëpp a waaw ña nga ca biir table ba ña nga ca biir table ba na procès bi ñëw mu teg ko juge bi ñëpp jàkkaarloo xanaa nag ñu ne nañ leen procès ñu àtte ñu ñun ñu jeex dëkk bi ñu ku nekk dox yi say soxla xanaa nag ku nekkaa ñu procès ñëpp dégg ñu coow li jeex loolu na kenn laaj kenn waxu fi kenn dara nañu procès rek lépp jeex man du ma médecin ah, ma ne xam nga ñoom ñi ngi ci biir ñoom ñi ngi ci biir bàyyi leen ba ñu génn mais mais mais ok Gabriel yaa ngi soutenir Adji te y' a pas mal de femmes yoo xam ne ñu ngi fii au Sénégal dañ leen violé dañ leen euh, malmené jaay leen doole mais ñu la gis nga porté seen combat nga jël combat bii di combat wu Adji du ma ne combat sax dugg ci Adji Sarr bon am na ñu naan xëy na da ci bëgg dara moo tax nga dugg ci laxasoo bi ba mu dëgër. tee ba mu dëgër nga def ko sa yëf pendant ce temps d'autres filles sont en train de souffrir au Sénégal partout dans le la gis nga wax ci lu tax loolu. dégg ma waxaatal ma dégg man je vais eh, déglu ma attends eh, eh tribunal bi ma fi mujjee dugg déglu ma eh bu ma bu ma yëngal de tribunal ba may mujjee dugg tribunal déglu ma ba may mujjee dugg tribunal ba may mujjee dugg tribunal Souleymane Ciss moo ma indi tribunal Souleymane Ciss ba ma indee tribunal dafa takk jabar ta teg ko fee maa dugg tribunal def lan teg moom dafa takk xale doomu jàmbur toroxal ko dégg nga de ma taxaw si kenn taxawu ci loolu ma mujjee indi tribunal gisee maanaam lu ñu maanaam taxawaay bi ñu gis ci lu ñu gis ci Adji Sarr li ñu ciy def maanaam risque yi ñu ciy jël engagement yi ñu ciy dañ leen a kompolo woon ngeen daanu seen bopp bu leen kompolo woon ngeen daanu la ngeen fay wuti ku leen gunge ku leen yóbbu ah ngeen ngeen yàlla rek a xam. dem demaat dem demaat moo fa am dem demaat moo fa am kenn gungewul kenn kenn yóbbuwul kenn dimbal leen ñu. Bakkaar ba fa demoon loo lan luy ndayu bàyyi sa ñaari jabar dem suite beauté aji sax dafa mën a faj dimbal leen ñu ragal yàlla mooy ñàkk teg sa tànk suite beauté loolu mooy ragal yàlla dëgg. nañu njëkkee foofu ku ragal yàlla doo teg sa tànk suite beauté dimbal leen tànqal nit ñi ah. ñii bu lu fi nekk di leen tontu. non ñii dañoo yabaate bu fi nekk di leen tontu. dañoo yabaate. bàyyi leen. léegi man ñi laa bëgg a waxal. Modou ñun sequñu ak Adji Sarr dara ñun Macky Sall lañ seqal dara bu leen wax waxi Adji Sarr yéen Adji Sarr du ci dara ànd ak Adji Sarr ci dara ñun Macky Sall moo suñu problème Macky Sall moo bëgg a yàq réew mi ngeen dikk taxaw di lijjanti ay ñoom Adji Sarr yu waxamul yéen Macky Sall ngeen war a waxal bu leen waxal ay Ala Diouf bu leen waxal ay Mamour jallo président Macky Sall moo bëgg a taal Sénégal ngeen di ko taxaw bi di wax ñoom ay Adji Sarr yu ma xamul ah ñun Macky Sall la ñuy wax korom comploteur président comploteur mooy Macky Sall ngeen di ko taxaw di wax ay Adji Sarr yu ma xamul Adji Sarr du ngeen seex ak moom bàyyi leen Adji Sarr mu def lu ko neex moom amul problème ñun problème bi ñu am Sénégal tam si kilifa yëpp xam ko mooy Macky Sall moo bëgg a yàq Sénégal Adji Sarr du dara Adji Sarr xale ndaw la bu ñu manipuler ay Mamour Diallo lu la defal na ko Macky salla